ñu ni feebar la ñu wax ko nag maanaam ci biir feebar boobu ba mu fajoo ñu ne def ñu ne feebar bi di gën di yokk la ko ci dimbali di la ko ca mooy dafa mujj jël boppam moom Mouhamadou Boussiri radiyallahu anhu def boppam ñaari jëm ci dañu wax ni sax soxla wala diis mbaa jaar jaar bu jullit am boo defee lu mel ni li may bëgg a te mu defoon ko moo buntu dana feeñ te moo di dafa jël jëmmam mel ni lu ko def ñaari jëm ci benn néeg jëmm ji di laaj jëmm ji mu janoon ni ko waaw yow yow nga bourse bi lan la lu la jot jëmm ji di ko tontu mooy laaj boppam di tontu boppam ma ne dama feebar feebar boo xam ni yàgg faje naa ko lu waaye rek dépassé na ma mu am am ndigal luñ ko jot ci boobu jotaay bi ko da ngay woy yonent bi alayhi salaatu wa salaam def tawassul ci moom mooy saafara sa feebar mu jóg rek woy yonent bi loola tontuwaat ko ni ko déet du noonu man bul ko direct na am foo ni foo jaare bi way ca loola te moom moo la tax a moom yonent bi alayhi salaatu wa salaam mooy li ñuy tuddee ci arab xasal xasal mooy di way kilifa wala ngay way mbir tàmbale woo ca dal ca mbir mi waaye ngay ut fooy wër di jaar ba ba ngay ëgg si yonent bi alayhi salaatu wa salaam moo tax mu tàmbalee ko amin tadar li jiraani di fii salamin mazajja daman jara من منقلة البدم أم هبت الريح من تلقاء كاظمة وأوغض البرق في الظلماء من إذنه بلا يذكرون فما لعينيك إن قلت الكفاء ومتى وما لقلبك إن قلت استفق يهري jëmm ji di wax ak bi ci des ci xasal waaw yow loo fi nar a nekk da nga nar a jaxasee sa bët yi nga nar ko dëkkee sottil rangooñ yoo xam ni rangooñ yi sax dem na ba buy xel li dafay jaxasoo deret ndax ni ko nag walla ngelaw mu bu bokk am xëmbatir weeku nit ci kaay yi barab la kaasima barab barab yooyu mu ci tudd nag dafay jege ji fi yonent bi gane àdduna ak fa mu dëkk moo tax muy tudd barab parce que boo soppee ki nga sopp waxuma nga bëgg fa mu dëkk waaye booy dem ci fa mu dëkk yi ngay rombaale yëpp da koy sopp waaw booy dem ci na demee ziar am na yooyu romb yu bari da nga koy sopp ci yoon yoon su ko ngay àgg ci mu soofaale yooyu ndax cofeel ci boppam moo diis ba noppi diis gis nga boo gisee cofeel ku mu dal dëgg def ci yow lu mel ni feebar xam nga lu ko war da nga yanuloo moomu di ko jëmi di ku ko moomu da nga yanuloo moomu di ko jëme ci ko moomul ndax ndax bëgg ko ne bëggoo ki nga bëgg da nga bëgg koo yëgagul ni moom nga bëgg moo tax cofeelu métti moo tax bëggoo ki nga bëgg mais da nga bëgg koo yëgagul ni moom nga bëgg te kii ràmbaatu dajagu waaye ku daj dal hmm? ku daj dal looloo tax nitu yàlla ba wax ko ci arab jàng ko ci tubaab bi tekki ko ci tubaab Ibnu Arabi ne les gens savent bien que je suis amoureux seulement ils ne savent pas de qui jeex na le sëriñ Cheikh naan radiyallahu taala anhu sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane Thial Maktoum radiyallahu anhu nee na wut yàlla bëgg yàlla ba di yaa ngi jóg di ko wut bu la yëkkati fexeel bëggu ci nit ñi xam dara ci li yàlla ngi wut buñ ko xam ci ndax nee na bu ñu xamee ne yàlla ngi wut daañu la ko wutale ba mu wér su ko defee nag cofeel bu tax googu nag moo jàppoon Muhammadul Busiri te dara wu ko fenn fu dul na nant bi tàmbalee ko ca noona ca Ghazal ba di ñëw di ñëw di ñëw ba ci buntu ñetteel ba defe ci fi waxe ci dana adduna yonent bi alayhi salaatu wassalaam ba mu agsee ci fa mablagul ilmi fiihi annahu basharun ak luy mën a am daal dayoo xam-xam li mu joxe mooy Muhammad alayhi salaatu wassalaam nit la nit la boobu nag mel ni lu ko tax dëgg la nit la waaye nag lu muy teg ci bayit bi pour mottale ko bayit bi jaaxal ko ndax jàpp na ne li mu wax ni Muhammad ak fa dayoo xam-xam yam daal mooy nit la nit la waaye daal di koy waxaat ñetteel di yoon na fi mu tëdd ci lalam boobu mu feebare ci la yonent bi muri rido moom tiim ko ni ko wa annahu xayru xalqullahi kullihi annahu xayru xalqillahi kullihim moo tax ñu ne burdatul matin bayit boobu yonent ne ko mottalil boppam ni ko waaw nit laa kon ñëpp waaye nag ci lu dul bàq ci lu dul tiitu mboole bu yàlla yónni ma ci sallallahu alayhi wa sallam ca la wéere la moo tax gudd ñaari tur la ba noppi nag solal ko mantu mantu mooy buuj dëkk mantu mooy buuj dëkk waaye ci la jógee am bur a bur a mooy wér manto ba mu ko soloon la dégg nga ca la bur a ba laxasu ah radiyallahu taala anhu nag ca la wéree nag boo gisee mag man ñu fonk xasal la ñu li ma ko mën a expliquer ci wolof sunu maam maam sëñ Xadi Touré radiyallahu taala anhu ba mu jëkkee aji makka wàcc makka guddi guddi ga mu wàcc makka lamp yi nañu leeree yu lay bi ci biir moom it mu bëgg a way loolu waaye bëgg utal xasal na xasal bi mooy lan mu xalaat nit leeraayu lamp yi ci makka ñu lay kaaba ci biir ñun kukk xelam dem ci Zeynabu bintu rasulillahi bi yonent bi taawloo ca Makka sallallahu alayhi wa sallam mu jaaree la xasalam foofu di laaj boppam naan moo man damay ne am sax maa ngi yëg li ay am xel bi day xala man xol bee di wëndeel hmm? lay xasal daal ne ni am na melax ko li mel te Zeynabu reeyam ja mooy loolu naxu melax dafa roy leeraay yi gën ca say ka ak yërëm dafa roy ci ñëm ma ci njëw kon nag ci gàttal daal burdu ñu xam ne bunt bu jëkk bi aminte la di jiiraane bi di salamin ba ci bu ñaareel yëpp a gasal waaye su mu dugg ci yonent bi nag alayhi salaatu wasalaam tàmbalee ko ci abana moom yu ko alayhi salaatu wasalaam di ñëw di ñëw di ñëw ba ci bunt bii ñu a ci burdu defe naa mooy tolloo kéemaanam ya jaa'at bi da'watihi al-ashjaaru sarjidatun defe naa moom la ñu jàng tey ci lay dugg di garab garab nañu daan sempeekoo fa ñu nekk di wuyu si yonent bi di dëggal doon ki mu doon di yonent mu bokk ci kéemaan yi alayhi salaatu wa salaam ba tey mu bokk ca kéemaanam ya ci bunti bi ñuy jàng tey asidqu fi lgaar wa siddiqu lam yarima wa hum yaquluuna ma bilgaari min arina ظنوا الحمامة وظنوا العنكبوت على خير البرية لم تنقصوا الجبل متهم lu tax bi xaayatullaahi afnat amul am afatin daañu ko jàng tey ci bunt bi bu ñuy bóotu moo tax ñu bëgg bu ñu ko dee def nañuy teewluwaale nañuy teewluwaale teewaay yonent bi ci suñu si présence am nañ koy tey nangoo naa ci la mu ne seen Cheikh na Tidiane seen mag moomu radiyallaahu anhu fu ñu ko tàntale tudde ko tànta ba nee na bu ñu ko yëgee bu ñu ko yëgu dana fa jaar kon nañu teew teewaayu ci sunu biir alayhi salaatu wasalaam bunt bii ñuy jàng tey nag ci la lii ma wax ne ñu teewlu mooy ba ñu ko xatale ca mag xamuñu gëddëm te am droit xeex mag kufu aydiyakum la ko yàlla wax moom ñi mu àndal croiser les bras da ngeen taxawal seen i lor gaay def lu ne amuñu droit xeex alayhi salaatu wasalaam jama xare yi ma ngi ubbee ci Madina ba ñu gàddaay yéen a jot ndigal pour xare waaye màkk xeexu ko salaamaaleykum mu bokk nag ci keemaanam yooyu nga xam ne dañ ko jàngale tey ci bunt bii ñuy wàññi jàng incha allahu taala ñu teewlu ko mooy bëggeen nag màkk jotee te mu dajale saxaaba yi diw na nga ànd ak diw diw na nga ànd ak diw diw na nga ànd diw te na ngeen ngeen guddi na ngeen ngeen guddi Aboubacar nag yow na nga ànd ak man moog Seydina bu nga Seydina Seydina Omar ibn Diop ñaan ñu ko may may yaa Rasulallah mais juuma sa digal waaye may ma man ma bañ a def guddi ma dem yoor yoor ndax man daf day mel ni ci man xaj lu bon yii ñu génn ñoom lay nëbbatu te faalewuma leen may ma rek ma tëdd ba yoor yoor te su may demee dama leen di tàggat yonent bi ne ko may naa la ko mu ne waaw comme amuñu droit xeex xeex ah may ma rek ma dem ma yoor yoor ma ñëw fekk leen ma jënd te yoor yoor ba mu ñëw jaar ca booru Kaaba ga tawaaf Kaaba tàggatoog nit ponk bi yëfër yaa mu ni leen xatar ngeen ki leen ba tey nag na gental màkk dem sañ ci Madina ñun ñëpp nag joxoon nañu ndigal ne ñu nañu dem ñëpp dem nañu ci guddi waaye man ak Ali ibn Abi Talib ak ña fi des ñu dénkoon yonent yi moo ko fa bàyyi mu ne ko fanaanal ci sama sawla bi sàngool sama mbàjj mi bu bët setee diw moom moom ndénkaan diw moom moom bii diw moom moom boo joxee yëpp yëpp nga fekk si ma mu ba Omar ibnul Xattaab ne leen man maa ko ñaan ne ko ma ma dem ba ci man nag maa koy fekk yoon bii nag laay jaar xacc yu bon bi xàcc yu bon bi yoon bii laay jaar baat bu gàtt leen di wax ku bëgg sa doom di jëriñ sa jabar tënj topp topp waaye kenn topp radiyallahu anhu mu ànd ak Seydina Abubakar Siddiq ci gàttal dem ba waa mag ba ñu xam ne dem nañ talaata muy dem yàlla ñu ko jëral suratu Yaasin nga jàng ci ponk li yéefee yi nga ëf leen suuf si ñu ni xëy na bi nelaw ñëpp nelaw ba bi dënd si waaye bàyyi na ca keemaan ya ba mu jàngee la muy jàng ci yaasin ba ëf leen ko fa ñu tëdd ku ca bekk suuf suuf daal daal rey nañu la badam bokk na ciy jël ba mu jàngee tibb ci suuf si jàng ëf leen ku ca bekk suuf daal daal rey nañu la badam mu ànd cee naa ko nga Suraaqa te jéem na koo def sottiwut alayhi salaatu wassalaam fu mu mujje gannaaw ba ko nattu ya dabee lu ne mu jànkonte ko moom ci xeetu coonoog suuf jëm koo won muy ñaar yonent bi yërëm yoon ba mu ne ko yërëm yoon ñetteel bi yoon a tuubi dem ni leen kat tuub na ku ñuy wax Burayda mu ngi tuub ni maa ngi koy dafi Burayda leen eh, man kër yow dinaa fajal ma ko seen gàcce nañ ma boole juróom fukki jàmbaar kuy dabi def na nit ñaar nan nañ ma boole juróom fukki jàmbaar ñeme wuñ ko te moom jàmbaar waaye bu ñu dëppatee seen fashion ba seen naa ko si def geesu gis pënd di wër yonent bi di jooy yonent bi ne ko lii lan la mu ne ko pënd bii bokk la ku njëkk di bëgg mbooloo ma lay def sax te bëgg naa bu ñuy ñëw comme dañuy dóor seen jaasi rek li ma lay wër mooy wet buñ koy dóoree yàlla na ma fekk foofa jaasi ja ray ma yow ma mucc yeggale la ne yàlla yow mu ne ko laa taxsan la bul geesoo ci sax sant ñu ànd seen sago di dem di dem di ñu ngi rëpp tër di ñëw bu rey ba mu ñëwee ba doxal ko ginnaaw ëgsi wàcc ci jaase xaj ci di fa guddoo rek yonent bi geesu ko rek jaase ko geesu rek jaase ko kii ana jàmbar geesu jaase ko mu ne ci looy wut mu ne ko dégg ngi dem ma ne ma bëgg balaa nga yegg ma tuub ñi nga àndal nag ñoom ñëpp dañuy tuub si yàlla ay sa ñëpp ànd na ashhadu an laa ilaaha illallaah waaye ca la ñu continuer continuer continuer ba jox tuuma barakallah ba ñeegi ba joxoon tuuma ñu dugg mooy bunt bi ñuy jàngatee ak sidq mooy yonent sallallahu alayhi wa sallam fi l-ghaar moo dugg noonu ci biir xuntuma la wa siddiq ànd ku dëgg di ko ko jëkk a dëggal ko muy seen affaire siddiq noonu la ñu dugg ci ko ni yaa rasulallah bëgguma la jiitu ci dara da ngay jiitu ma topp sa gannaaw mais xunt mi comme may ma la jiitu lu ma fi fekk luy lor mu lor ma te yow nga mucc sallallahu alayhi wa sallam ay ko jël digal Seydina Bakar Si def dugg fekk fa ay pax te xamul paxi ba li mu làmboo moom la doon xottat di ko saaji pax yi ba làmbaa yu mu jeex mu def yaram mu des benn bu mu fàttali mu teg ca tànk ne ko yaa rasulallah ak si yonent si fekk xaw na sonn tëdd nii ci kaw Abubakar di nelaw ndakati yamu saañ yëpp dara nangu fa mais bi mu teg tànkam fi la konkolum ñàngoor nekk ñàngoor la moo ko matt moom Abubakar si waaye ànd ak la dangara ji yëpp yëpp Abubakar bëggul tekki dàkka ndax bëggul loolu ak si muy muñ di muñ ba ñàkk bi mu ñàkk daal ci kaw yonent yonent bi ne xefe li ma ko jikkalaat mooy am sa mbalaam nga làmboo mu ne ko moom laa saaja waaye ndekete yi ma saaj bii lore te ma teg sama tànk la nekk ñàngoor moo fi génn man wax nañu ne alayhi salaatu wasalaam jël allahu mulku samawati wal ard masalu nuurihi ka mishkaatin fiihaa misbaahun ba aaya ba jeex waaye ko te ko ko la mat te jàmm dangar ja wàcce ca saa sa ñàngoor la génn yonent ni ko génn bu génn ak yonent bi na wax loolu ne moo laaj ko ni ko lu tax nga mat sama saxaaba bu baax bi Abu Bakr njàngoor la nit man man yàlla moo ma xamal ne di nga gàddaaye mag ñëw Madina yàlla moo ma xamal ne njàngoor la koy wax di nga jaar ci ma xam loola dugg ci sama sax mii di xaar nga ñëw ma ziyaar barkeelu ci yow kii teg ci tànkam ma màcc ko waaye noonu mu nekk ci xuntuma ba yéefar yi ba bi ko mag di ko tab si di xool ba jëriñ xuntuma di topp tànk yi di topp tànk yi ba ni fii la nekk de fii ndax tànk yi fii la yem kon ci xunt mi nag waaye la leen gërëmal la leen gërëmal mooy buntu xunt mi gis nañu jargoñ du fi lënd gis nañu pitax du fi tàgg ak nelaw di tax boo xam ne dafa tànk ak nenam ci biir foofu la kéemaan bi nekk mooy bi ñu jàng tey zannul xamaama moom la ñu jàng léegi wa zannul ankabuut lu tax indi baat ñu joor ñu joortu bi ñu joortu bi jar gu ñu lu dellu joortu bi alayhi salaam bi tax moo fa boobu ak ne aleykum salaam waaw <laughs> dégg dégg waaw dégg dégg buñ ca ëgsee bu ñu ëgsee ci buntu boobu ngeen teewlu li may wax asir ku fil xaar والصدق في الغار والصديق لم يرم وهم يقولون ما بالغار من هرم مولاي صلي وسلم la leen gën gis nañu jargoñ boo xam ne lënd na buntu xult gis nañu ni li tax mu ñuul boo xam ni mi ngi uuf ci wetam benn nen bu mu nen ñu jaaxle yonent bi mi ngi jànnoog ñoom Seydina si Siddiq mi ngi jàkkaarloog ñoom Seydina Aboubacar Siddiq nee na bu ñu séqee woon benn jéego rek daanu ci sunu kaw benn jéego rek bu ñu ko séqee woon daanu ci sunu kaw waaye la ñuy tuddee lëndu jargoñ du woon lënd ni leen yoon ci bi ne jàkk yi dikkee lëndu jargoñ ni mu leen lay jàkk xool lay ñuul ci bët bi indil leen la cay weex indil leen nen waaye kon du pitax du nen du jaru waaw dafa ni jàkk xool rek seen bopp jaxasoo pitax mi jargoñ bi nen bi te du ca leen xoolit bala rek sallallahu alayhi wa bu ko defee buñ ci dëgsee ñu teewloo ko noonu xam ni kii rek ka kii rek a jar a kañ sallallahu alayhi wa sallam te kii rek a jar a gën a kañ looloo waral maam si El Hadj Malick si Alioune daal Malick ginnaaw yonent bi lépp bi dañ ko werante dafa am ñu ni ci rabiul awal ci la jëm am borom xam-xam yu ni ci bés bu dëkk bi am ñu ni déedéet ci bésu ñaareel bi am ñu ni déedéet bu ñetteel bi la werante ko ba ca bu fukkeel bu fukkeel baag benn kenn kenn. waaye bu fukkee baat ñaar ñi ëpp ci xam-xam te Xaaji Malik ca la bokk moom nee na booba la waaye bu ormaal borom xam-xam yi ginnaaw bunt fukki bunt mu ne kon bu weer bi teru guddi gu jot nañu barkeeloo benn bunt ormaale ko borom xam-xam yooyu ci bés bu njëkk bi Xaaji Malik ku bari tegg bu ñaareel bi noonu bu ñetteel bi noonu bu fukkeel baag benn comme kenn tudd ko mu ne nañ ko noppal mooy bésu noppalu bi su ko defee bu fukkeel baag ñaar comme ñi ëpp nee nañu ci la gane àdduna mu ne nag kon na bu fukkeel baag nan ko law daaw barakallahu fi ñu burdo fukkifa noppalu bu ñu xëyee jàppum fii la naa ormaam ak tegginam moo ko tax a tànn Budratul Madih bu wér bi teroo ñu jël ko waaye mu jàng li mu bind xam ne mënoon na def bu suba soo hmm? waaye orma radiyallahu taala anhu ak yi teggin radiyallahu taala anhu ak yar gan mas ni àndal barakallah na nga barkeel barakallah du dëgg kon nag yonente bi alayhi salaatu wasalaam fasul yéene moom yonent bi fasul yéene ku koy wuyoo dem safara fasu ko yéene te man dama ciy teg dana bëri lu si ëllëg ndax ci gurdu am na ci turu yàlla boo xam ne mun daqiyam ci turu yàlla yi la bokk mun daqiyam mooy firi bu doon gurdu la dañu ne ëllëg bés penc rek la ko yàlla mun daqiyam toog ci kaw min barab mooy firi lu war ci jëf tey dinaa ko fay lu war ci jëf dinaa ko fay tey daañu ne avancé leen ñëw kenn du ñemee lu mu koy wax. nangoo naa ci làmmiñu say Cheikh Ahmed Tidiane Sall Maktoum radiyallahu anhu nee na dafa que bu bu jógee taxaw yoo xam ne def nañ ko ba ne kii ko ana ngeen mu ni taxaw na sama dama ñëpp ci gannaaw mu seet si yoga ba ca kanamu borom ne ko tooñkatu xeet waaye bi sama jamono bàkkaar bu la def te man lañu am te man yow laa am sunu borom nga mu ci bëti mu ne ko nga tiil ma ci rek sunu borom ne ko noo ko bëggee ni ko bëggee laa koy defee looloo waral maam Xaaj Maalik bu ñu way ci lay daaneel ngeen ñaanal ma ma dem ni sallim ala sajidin mursal shafaat seen tabax kay yan tuuti na nga xam ne ngeen baal baax ak ma daw ko mu gën a